yi bi ma leen sante yéen ñëpp ci seen teewaayu fii di ci remercier particulièrement suñu mbokk journaliste yi dama bëggoon tey waxtaan ak waa Sénégal si li xam ne ñoo ko sëmb depuis temps yu dama bëgg nag balaa may jublu si waxtaan bi ginnaaw bi ma leen sant yéen seen teewaay ñu jiital si cant bi son excellence Macky Sall président de la République du wax naa léegi seen nasaraan yàlla dimbale na ma suñu relation mot na ñaari fukki at ak juróom relation bi nga xam ne yokkute rek laa si gis considération laa si gis relation bi nga xam ne ni ko waxee si nasaraan dafa nekk exceptionnel loolu nag jàpp naa ne du ñu dem ba fu ñu toll fi relation boobu am lu ko xajamal ñaanu ma ko yàlla bëgguma ko suma mbokk ñaanuñu ko bëgguñu ko moo tax moom président de la république ginnaaw bu mu defee déclaration bu am solo boobu le 3 juillet 2023 pour fësal ne ko moom dematul élection su ma xel mu suma xalaat benn yoon que dinaa xalaat dem élection si ak ren bi parce que lépp lu ma xalaatoon man li jàppoon moo di ko président di ko waroon dem ba tax ne musuma xalaat projeté si kanamu président de la république waaye bu ma dogalee loolu moom président mu fësal kaddu googu ñun ak suma équipe ak ay militants et sympathisants ñu gën a bari si alliance pour la république yaakaar ak ñu nekk si diaspora ak yeneen sénégalais yi nga xam ne suñu def politique ñëw wut si ma ñu waxtaan ngir sumb benn projet bi nga xam ne dañu ko bëggoon jagleel sénégal yi loolu moo indi woon ñu xalaati nekk candidat pour élection présidentielle bi di moom malgré liggéey bu nga xam ne def nañu ko liggéey bu amoon solo na wax dëgg yàlla si ñaari weer yu ñu passé ginnaaw bu président fësalee tànneefam pour am ku jiitee coalition Benno Bokk Yaakaar mu woom ñaari yoon ñett benn yoon ñaari yoon ñett yoon ñuy waxtaan ci téléphone ñuy waxtaan ci rendez ñuy waxtaan man ak moom nopp ak gémmiñ ñuy waxtaan man ak président de la république et à chaque fois ñaar yëf la may wax na nga sàmm suñu diggante na xool intérêt réewu Sénégal bu ma ko njëkkee wax ma laaj ko na ma may tuuti ndaxte projet bi wax dëgg yàlla daf am ñu ma ko suma loo ñooñu nag baax na suñu demee ba tollu foofu ñu mun waxtaan ak ñoom xool yi ñoom itamit seen i xel ak seen i disposition parce que nag lépp loo gis ànd de groupe ay waxtaan la ay poñ yi nga xam ne dañu si d'accord ba ma ñëwee jëbal leen kaddu yooyu yi nga xam ne président wax na ma ko ñoom it wax dëgg yàlla dama leen bëggoon sant fii d'abord si liggéey bu am solo boobu bu ñu def mais surtout bi nga xam ne d'accord nañu ak man si xel bi nga xam ne président de la République moom la jox ba tax démb ma ñaanaat encore président de la République ma gisee ak moom mu nangu ñu toog mu fësal ko ne alhamdulilah rabbil alamin mel na ne képp ku nga xam ne àndoon ak àndoon ak man si projet boobu bi ma leen rappelé léegi d'accord na ànd ak ñun tamit pour ñoom ñëpp ñu lëkkaloo suñu doole maanaam ngir xeex victoire pour coalition benn bokk yaakaar au soir du 27 février 2020 loolu mbokk yi moo doon kaddu yi ñu xam ne rek lépp li nga xam ne ñoom sumboon nañu ko du ambition personnelle mais dañu jàppoon ne lu baax ci réew mi la li nga xam ne moo waral doxal réew mi li xam ne moo waral jëme réew mi jëme réew mi ci kanam maa ngi leen di sant di leen gërëm ñëpp asalaamaaleykum